dal leen ak jàmm ànduma ak kenn te jàppalu kenn nekk kàddu yi ki nga xam ne nag moo di Youssou Ndour nekkoon fi nag ministre de la culture ci ay jamono moom nag Youssou Ndour moo wax lu ne mel gannaaw ba ma xamee léegi ne nag nee na mënul bokk ci élection yi ngi di ñëw ndax kat nag aw turam dañ ko retiré ci fiche de parrainage yi moom Youssou Ndour kon yile élection muy xam ne ne du ci mën a bokk waaye nag du ci mën a bokk tamit kon du mën a kenn di ay cadeau mom Youssou Ndour muy nga ne du and ak kenn kenn amul ma paate amul ma samba amul ma demba amul kenn ku may and ak ngir la nga mën a bi le rew nek cadeau yi ki nga xam nak modi di Youssou Ndour gannaaw ba nga xamee ne nag aw turam dañ ko retirer ci fils de parrainage yi tey sax xam xamle na tamit ken ne nag daal di ney jóge si geew bu le nak geew président Macky Sall xam won nako da ko gëna Momio Sonoro